sama grand nenañ ma eugën ku ra maxé ñu toqam yi maase wut day am fi ñetti pepp fee ñetti pepp ci suuf ñetti pepp fi ka fi trois do nga waxuma ko de grand yi ma ko wax grand yi ma ko wax waxuma ko de dañ ma ko wax nenañ ma nenañ ma nee grand nenañ ma sama <laughs> père yi nee nañ ma liñ ma coow lu bari da ndoxum ci ti da ndoxum siti de jox marché maase kërëm ma maa ngi naan naana naan ba màndi tox yàmbaa ba génne nga ñuul dañuy tuñi mu sa mu dóor ay weeyu gudd euh, couleur ko ay couleuru bële bële taxaw lax def nii da ko tëddee da ko tëddee bi ñam na joow international xam nga Adji Sarr joow national yi la ñam kii moom joow international la bi dañ ko caga new york lo dañ ko ñama ñama ñama ñama ñama ñama ñama ñam bu nit ñi mel le lèvre mi mel lèvre supérieur et inférieur ni qu'est-ce qui se passe dama ko gisee rek lèvre lèvre ni la def yambalan da nga ñëw rek dugg bob bi da nga na ni rek bob bi yegg fey Gaju gu amul bankas la motax mu jégué ay sa ndax lu dagg rek fekk ji moroma maire bi ko oh, ne jàgg ji jàgg ji dama ko dama ko sax may temps ji ma ne ko kii jàgg la de ki ki de mom ak ali saare motax ñuy ànd lu rek fekk ji moroma ki tamit lu mu ñam ci jom ki ñam na jom bu ne couleur bu ne taille bu ne maire bi ñam na joow international xam nga Adji Sarr joow national yi la ñam kii moom joow international la ñam maire bi dañ ko caga New York la woon dañ koo ñama ñama ñama ñama ñama ñam rocc leen sa làmmiñ yi bëri ngeen wax rëy ngeen dañ kumpa ngeen ëppal ngeen loo leen fekk bu fa jéem a jaay dëmm l'avocat du diable am na ñoo xam mënoo leen convaincre te boo leen deful ndànk yéenay daanu ci biir moytu leen ñooñu seytaane ku ko moytuwul moom du la moytu de saa yu yeewoo dina fexe kum fa jàpp kum jàpp ci mbaalam muslu leen ci yenn yi di leen gis ci yenn yi man du leen jox cër